kii mbokk yi li tax mu doon loo xam ne dafa sori ci man gis ngeen gàtt gii ni mu mel ni mu rafete gis ngeen ni mu toll kii sëñ Cheikh Saliou Mbacke yal na ko yàlla yokk wér-gu-yaram yal nañ ko fi yàlla bàyyi lu yàgg yal na ko yàlla yokk ko ci bépp fànn moo ma jagleel gàtt gii keroog bi ma mu Moustapha woowee ne ma sëñ Cheikh nee na am na loo xam dala koo jagleel waaye gàttuk barkelu la te mu defoon ko nii daaw duguleet ma ne ko ah loolu de neex na ma lool waaye su ma sañoon na bàyyi man ma ñëw jëlsi ko ma yónnee oto mu jëlsi ko mu na ma déedéet moo koy dawal moo koy dok dugal ci oto andi ko ba sa biir kër moo tax gàtt gi am valeur symbolique bu am solo ci man muy gàtt gi nga xam ne moom la ñu fas yéene defaat na ko keroog